daf ko yàqal la waaye nag loolee du bett ñenn ndax dafa am ñoo xam ne dañoo tiit Macky Sall ñàkk li nga xam ne mooy nguur ge te nag li nga xam ne mooy defaral Macky Sall maanaam ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ñu ànd akuk dal te seen mañax mañax jekk seen tëll tëll maanaam ñu daal di koy dakkal yéen kaay gi ne na engagement bi nga xam moom la ndaw ñuy amee jamono ji bay ba Macky Sall bàyyi ci xel yéen kaay gi de la Tribune nee na bi dafa juum ci combat bi nga xam ne maanaam moom la engagé ndax pouvoir bi li nga xam ne moo leen waroon li nekkoon seen combat mooy fexe ba ndaw ñi nga xam ne mer nañ ba maara day taali dëkk bi mett metti ba maara day taale ñu jéem koo saafara waaye nag pouvoir bi au ñu def loolu maanaam ñu nekk fi di song di attaqué ñi nga xam ne ñooy opposition bi yéen a gi nag nee na Ousmane Sonko jamono ji maanaam moo tiitala waa benn bokk yaakaar yéen a kaay gi de la sa nee yi jamono ji maanaam jàpp gu ñu benn date boo xam ne ak déggoo am na sax waaye nag wax ne campagne ba commencé na ndax parti politique yi muy pouvoir bi di opposition bi gars ñoo ngi waaja li nga xam ne mooy élection locale ñoo xam ne li nga xam ne mooy ay ñoo xam ne jamono ci ñoo ngi wagg waggal seeni parti politique yéene kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Moussa Diaw di ab jàngalekat ca université Gaston Berger nee na bi lenn kese maanaam mooy tax ñu mën a am doole ñu booloo ci seen biir te jafe na loolu opposition bi booloo yéene kaay gi de la témoin nee na jamono ji nag fu ñu tourné rek gis ay meeting yoo xam ne ñi ànd ak Macky Sall ñoo koy def waaye nag maanaam ay dóor marto la ñi nga xam ne ñooy ànd ak Macky Sall meeting yi nga xam ne moom la ñuy def waa témoin nee na ñu ay dóor marto la ndax jamono ja xam ne ay manifestation amoon na ci réew mi ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall ñoo dawoon làqatu abonné absent yéen a kaay gi ne ñu dem ci hôtel yi làqatu làng ka daare ba ñu ñëw jàppale Macky ba jaan dem ñu topp sa wadi sidi dóor yéen a gi ne na martu yi nga xamante ne jamono jiital waa Benno Bokk Yaakaar moom la ñu di organiser nga xam ne mooy ay meeting dañoo bëgg nag nelawal ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall waaye nag Macky Sall war naa comprendre que ñii maanaam dañu koy dóor jiital discours yu saf sàpp la Khalifa Sall maanaam di yëkkati di bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy nguur gi yéen a kaay gi délibération ñu xëy fekk fa ministre conseiller Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma nee na yi nga xam ne jamono ji ñoo koy defar ci Touba xayma nañ ko ci lu toll ci quatre-vingts milliards nee na Macky ngi liggéey yéen a kaay gi de la Tribune nee nag ginnaaw bi si Samba Sall génnee àdduna bëri na ay magistrat xam ne ñoo ngi buuxante a kaay gi nee liggéeykat yi nekk ci wàllum wér-gi-yaram ke ñoom nag daan nañuy déposé li nga xam ne mooy ab préavis de grève la ko waral nag dañoo mer ba maara détaal yi ndax ne nañu accord yi nga xam ne signé woon nañ ko ak état bu Sénégal te ba léegi nii France dali xëdde na yéen a kaay gi di réew ko di jee mu xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall dem na sa Bruxelles yéen a kaay gi ne na Macky Sall gisante na fa a ki nga xam ne mooy njiitul Banque européenne d'investissement waxtaan nañ ñoom ñaara ci lu jëm ci woppi coronavirus nga xam ne moo am rawatina lu jëm ci wàllum kooma ak wàllum investissement yéen a kaay gi ne na banque européenne d'investissement nee na ñu nag pare nañu ngir jàppale Sénégal bu baaxa a ndax at mi nga xam ne moom la ñu weesoo lu toll ci cent cinquante et un milliards yoo xam ne nag banque européenne d'investissement jàppale woon nañ ko Sénégal yéen a kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu gendarmerie nationale dina recruter lu toll ci trois mille volontaires yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar mbir mu garaaw a garaaw a garaaw mbir mu doy waar moo xam ne maanaam jégg na dayoo li nag musiba ma a kaay na dafa am benn policier boo xam ne dafa violé benn xale bu jigéen ci ab commissariat média police bi sax dafa mujjee fanaan ak ki nga xam ne maanaam muy jigéen gi loolu nag doy na waar yéen i kaay vox populi nee na nag koor gi ma ngi doora te na nag loo xamante ni ci biir marché bi dafa cher ba jéggi dayo rawatina jën yi li nga xam ne mooy yàpp wi yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ca ca conférence de la CDC Africa Macky Sall daan nay wax ne dina am vaccin yoo xam ne Sénégal moo koy defara te institut Pasteur bu Ndakaaru maanaam moo koy defara yéen i kaay gi di laas nee na dina am ay vaccin yoo xam xam ne fii ci réew ñu koy defaree yéen kaay gi dee sat xëy wax ci Ligue des champions quart de finale retour yi yéen kaay gi nee na Bayern na tey ji nag dem ca Paris Saint-Germain yéen kaay gi di sunu lamb ñu xëy fekk fa Modou Lo muy dànkaafu ki nga xam ne mooy Ama Baldé ak i mbokkam Modou Lo nee na combat bi nga xam ne moo dox digganteem ak Ama Baldé du nekk combat boo xamante ni bu yomb lay doon Modou Lo ne na bi su combat ba ñi nga xam ne ñooy supporter Ama Baldé yi bay boo ñu ndax bu ñu jugee ca lamb ja kenn du dala reer Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen leen doon may seen revue de presse